boo ko xoolee ci biir seetlu ko seetantal ko talaata la boo xam ne dëgg la xaw na nuroo ak yeneen talaata yi ci stade ngalandu Diouf bu Rufisque bu weesoo mandarga fitna bi nga xam ne mënuñ koy seetlu clôture bu yàqu saxaar soo xam ne ñu ngi koy gis ci gazon bi ba léegi ak i ay gradin yu xaw a yàqu yenn saa yi lu ñuy faral di gis rek la ñuy gis ci stade ngalandu Diouf ay jeunes yu entraîné wu ànd ak ay mag ci pelouse bi fii la nag ñu ngi naxarlu bu baax a baax lu xew bokk na si doomu Rufisque bi tudd Balla Gueye maire

le soir mo fi parce que damay bañu touché moto parce que xamoon naa ne nii lay démé parce que football bo xamné ñom biñuy bi commencé à une heure ñu ngi commencé di xeex ba ay police di encadrer ki ñu ñëw mais bobu leen war a arrêté affaire bi ñoo xaar ba maire Mor ñu koy ñu koy ñu koy arrêté festivité yi muy nawetaan muy lamb dañ ko wara arrêté dans ce pays parce que amuñu ñu bañ importance dafa yak jeunesse bi légui jeunesse bi ils sont devenus violents te lolu war nañ ko arrêté dès maintenant du moom rek moo wane meram bay di si itam kontaanul dara moom imaam la ci quartier bi mer bu baax a baax wax ne violence boobu la ñu wane dara mënu ko dëggal. ñaaw la quoi ce n'est pas à ce qu'on attend des des jeunes. waaw wax bi ñu defar yéen da ngeen di yuuxu yuuxu yuuxu bëgg nañu stade bëgg nañu lii bëgg nañu lii nit ñi sonn ba def ba defaral la ko nga ñëw yàqaat ko encore donc man waxuma sax mais yàq stade ba pare jógati encore dem di ci boole loo xam ne seen yoon nekku ci. ay stade football lu ci yoonam ak saxaar yàq ay train di sànnante ay xeer ñun suñu fële sunu koñ bërkit bërkaati démb xaw ma oto yi ñun mënuñu mënuñu jàll fii dañu mujjee delluwaat dellu delluwaat ba ca fële encore pour pour pour jël ay oto mais yooyu.